Ousmane est une légende pour xamante une histoire moo c'est-à-dire que euh, xëy na le président président de la république il nañoo wax ci moom mais li Ousmane wane ci grandeur ci générosité histoire de koy c'est qu'il a accepté de tout perdre il a accepté de recevoir de recevoir tous les coups mm-hmm. il a accepté de recevoir toutes les balles et en gardant le sourire Mm-hmm. c'est-à-dire que limu limu li mu daj lépp c'est-à-dire que day melni euh ñu lay jamaté mais chaque fois yaa ngi bëgg won say say ki kenn ça va quoi. ça va je souffre pas. ci kaw tu montre que ça va et ci noonu nga yow yow ñep ñep ya lañ fal ba ñi la ñi la ñi la taayal sax dafa ñoo ñoo téwone affaire yi. xam nañu xam xam nañ tey yaa leen arrondissement yi Dakar yëpp le le Bassirou Gaye xam nañ tey yaa leen faloon. Uh-huh. waxt wax wax nag tey lay neex. waaw tey jii waaw waaw tey tey lay wax. ñi doon wax ne ñooy ngand ngand lu maay lii maay lii. tey moom 19 communes d' arrondissement yëpp. Eh, fi ne nii eh, da ngay naan boo jëlee Podor ak Matam ak Koungheul ak Tamba. reste du Sénégal xam nga ko tax ñu ku ñu ku ñu tànn. Mm-hmm. te dara taxul lu dul Sénégalais tànn ko lu dul dëggu. dëggu. Eh, am grandeur boo xamante ni am générosité nangoo jouer collectif. Mm-hmm. parce que. politique xamul joue jeu collectif. man la wala dara. on ñun ñëpp ñuy xol PDS muy dé comme ça ndax lan wo ila c'est Karim wo ila du ken deux élections présidentielles deux